bismillahi irrahmani irrahim almahmadu lillahi jalla sanahu wa asa sultaanahu tabaraka taala wa huwa subhanahu la nasa sanaaw aley walmusalla aley abibahu wa mustaphahu wa xayratuhu min xalqihi almuhdatu ila alalamina sayidina wa maulana wa hadina ila salatillahi muhammadin xaatimi nabina wa imami mursalin mbokk yi déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di sabatanu ak yéen ci mbaaxu yàlla jël ma dem ci seen waxtaan wi tudd addiin wal xayaat wala euh, waxtaan wi xam ne day jariñ ci ñaari dundi doomu aadama yi àddina ak ak àllaaxira tey ji ñu ñëw ci benn tomb boo xam ne bii mi ngi tuddan euh, ci wàllu tasbiix tasbiix nag mooy sellal ci waxi wolof wala nga ni mooy sàbbaal bu la neexee sàbbaal bi nag waxum waxu arab la kooku wolof da ko arabal waaye sellal dëgg mooy am pirim ci wàllu wolof baat bi dañ naan masdaru sabaxa wa huwa maxuusun min maddati siinun baaun xaaun allati tadullu xawla maana yeyni e, masdaram sabaxa ñu jëlee ko ci e, matière bu ñuy wax siin ak baa ak xaa ab lonk muy tegtale ñaari maanaa maanaam bu jëkk bi jinsun min al ibaad aw xeet la ci jaamu waay wal aaxar ba ca des jinsun min yi xeet la ci jëf fal uulaa bu jëkk ba nag mooy asubhatu mooy julli subaatu mooy julli jagleel nañ ko ko ngir la nga xam te ne tasbi nekk na ko la ci farata da ngay dégg fuqahaa yu ñu naan tajmaul musaafirina bayna salatayni wala yusabbihu baynahuma loolu mooy ab tukkikat may nañ ko ñaari julli mu boole leen julli leen e, bu solmele ci de e, bu solmele ci yi dem ca gi te du doxale ak julli ci diggante bi gis nga bi mu ne baatub wala yu sabbiu baynahuma du julli ci diggante bi kon baatub euh, euh, euh, subuhatu day firi julli tasbiix nag mooy sellal walla mooy sàbbaal ci wolof rek ci gàttal pirim dëgg-dëgg wax wa tanzihu tanzihu nag mooy soril soril kan allahu yàlla jàll sanaahu min kulli shay'in ci lépp loo xam te ne lu ñaaw la wala lu bon la wala lu yelluwul ca jëmam ja la tansiihoo dana firi attabiidu mooy soril tansiihu dana firi attabiidu mooy soril wal arabu taqulu subhaana min kaza arab day wax loolu ay maa abadahu aka ko sori subhaanahu min nangam maanaa ay aka ko sori ay ma ab adahu aka ko sori <laughs> ibnu ajar ci istilaax dañuy wax ne at tasbih yaani qawlu subhanallah subhanallah mooy sellal naa tudd naa sellug yàlla tudd naa sellam nga bi maanaa sellal naa ko setal naa ko soril naa ko ci lépp loo xam te ne yàllawul ca jàmmam nga ci wàññeeku wala la nga xam ne eh, dañ eh, dañ koy dañ ko ko waral te ñu war ko ko dàqal te mooy ak bokkaale walla soxna wala ay doom suñ boroom kenn du ko booleeg dara dara dara wahdahu daal sharika lahu te itam amul jabar te amul doom ku amul jabar amul doom moo tax saar woowu ñu wax lixlaas ñëw wàcc di wone carte d'identité bi yàlla dëgg-dëgg identité bi yàlla mooy lam yëlit walam yuulat jurul juree sukko jurul juree juree sukko walam yekk loo ko fa na ahat amulum nawle yàlla kenn du ko gam-gamle wala nga di ko nirale wala nga di ko dendale kenn ak lenn wala ñenn waxdahu laa sarika lahu moom rekk la boobu baat nag nit yàgg na ko mën a wax waaye fekk booba am xelam wala ab xolam jàpp ko ay cëram jëfew ko dañoo bëgg toujours waaw euh, euh, dañu bëgg am euh, toujours nit ki di jéem a sori yàlla ci lépp loo xam te ne dafay yellu soril yàlla ci lépp loo xam ne dafay yelluwul ca jëmmam ja ak turam ya baatab tasbiix def na ci namm mboolem baati sikkar yi yëpp mën nañ ko tuddee tasbiix mboolem baati sikkar yi yëpp mën nañ ko tuddee tasbiix tasbiix maxluuqaat euh, wax subhanallah gi xam te ne bindeef yi ñi ngi koy wax <laughs> bindeef yi ñi ngi koy wax eh, loolu sunu borom subhanahu wa taala moo nu ko wax nee na tasbihu lahu samaawaatu sabu wal ard sabal gi xamte ne asamaan yi juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ak ña nekk ca ñoom ñi ngi koy wax mu ne wa in min shay'in illa yusabbihu bi amdihi walakin la tafqahuna tasbihahum kon amul mel ni mbindeefum yàlla moo xamee ne du dana sàbbaal xar yéeg bëy yeeg mbooti yeeg weñ yeeg eh, yoo yeeg jëmm jum mën a doon lu mu tuuti tuuti moo xam luy naawla wala luy ruuru la wala luy watu la wala luy dox la wala luy cëpp-cëppi la wala lu am ak ruux la wala lu amul ruux la wala xeetu garab la wala lu mu mën a doon dana sàbbaal subhanahu wa taala waaye nag nun noo xamul rek na muy sàbbaale moo tax mu ni wa in min cheyin illaa yusabbi bi amdihi walakin la tafqahuuna tasbihahum naka noonu tam soo demee ci alquran da ngay fekk fu naan alam tara anna allaha yasjudu man fi samawati wa man fi samawati wal ard fi samawati wa man fi ard xanaa gisuloo ni yàlla danaka sujjootal képp ku ne ci asamaan ak ku ne ci suuf wa samsu moo xam jant la wal xamaru weer wa nujuuma biddéew wal jibaalu ak doj yi wa sajaru ak garab yi wa dawaabu ak bayma yi wa kasiiru min annaas ak lu bari ci nit ñi fa sujudu haadihi l maxluqaat su jootu ko yooyu la bindeef comme seen jant ak weer ak garab ak daxaba yi ak lu bari ci nit ñi laa ni su jot googu ibaadatan ak jaamu la minha ci ñoom li xaaliqiha ñeel aji bind seen waaye nag la laa tafqahuha anha xamuñu seen sujjoot googa nan la ñuy sujjootee eh, kama la tafhamu tasbiha comme ni nu xamewul ni nañuy sàbbaale noon it la nu réeree nu ñuy sujjootee waaye amul lodi lodi lodi lu ma ngay sujjootal yàlla ci asamaan ak suuf moo xam planète yooyu ñu may wax mooy jant ak weer ak yeneen planète yi ci des yu nu xam yu nu xamul montagne yu mag yeeg yu guddi yi ak yu gàtt yi yu yaatu yeeg yi ak yi ni ci biir suuf ak dañuy sujjoot li xaaliqiha ñeel aji bind seen waaye sujjoot googee day laa tafqahuha anha xamuñu ko xamuñu ko ndax kama laa tafhamu tafqahu tasbihaha comme ni nu réeree sabbaal ya noonu la nu réeree itam sujjoot ya alquran danaan kazalika qawlu taala waxe yàlla ji de yàlla danaan wa inna min aljibaali lama yatafajjaru minhu al anhaar am yàlla wax nañu ko nee na am na ci doj yi yoo xam te ne dañuy eh, xar rek dégg nga daal di eh, di tuur am ndox ci dex yi di sos ay dex ay dex di sos sos ci ci moom ngir toj gu gudda toj ndox ma di ca génn waaye wa ini min ha am na ci yoo xam te ne moom la maay saqu dañoo xarra ji ki ni xareet fa yaxruju min ulma am ndox di génn foofu laa ilaha la la gis nga ko moo soo demee ci bitim réew am na àll yoo xam ne boo fa demee da ngay gis montagne yu mag yu jikki-jikki nga gis doj wa ni rek nga gis ndox may sottiku mu ni wa inna minha lama yaxbitu min xasitillah am yoo xam te ne day jékki-jékki da daggrot lu lu ko waral kooku moom suñu borom wax na na ko ni ne min xasitillah yi ragal yàllaa tax kon amaana ba nga xam te ne day jékki-jékki rek daal di toj dex yi di ci génn am yoo xam te day jékki ci xar ndox di ca balle am yoo xam ne day jékki-jékki dagg xeer yu ci boppam daggrot yàlla nee na min xasitillah yi ngir ragal yàllaa tax mu ngoog loolu moom moo nu ko xamal waa xat alima llaahu xubootaha min xastati kon yàlla xamal nañu daggug doj yooyu di rot ak a xar ak a fett ak a toj di génnem ndox nee na min xastatihi ci ak ragalam loolu moom suñu borom moo nu ko wax bu nu ko waxul woon duñu ko duñu xam ne loolu mi ngi koy defaay fekk booba ak ragal yàlla tax ma di ko def waaye nag wala mu yuarifa dalik bu dee wàllu euh, li nga xam ne mooy su juut ya na muy sujjootee mbaa na muy sàbbaale moom dañuy delluwaat ca aaya ja rek eh, amul lu dul lu di lu di lu ma ngay wax bi wa bihamdihi waaye nag noo xamul seen sàbbaal ga nañuy sàbbaale rek waaye lu yàlla bind rek mu ngi koy jaamu amul kenn koo xam te eh, bañal nga sa boroom ci loolu sàbbaal yi xam ne alxuraan andi na ko soo demee ci téere bu ñuy wax saahibul bashair di nga fa fekk loola doy sunu borom subhanahu wa taala di wax sàbbaal yi xam ne rot na ci alquran lu tolloog fanweeri yoon yoo xam ne dafa séddaliku ci malaaka yi ak euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ak yeneen yonent yi dul moom ak euh, bàyyima yi ak euh, ndog ment yeeg rab yi ak ngajabaaf yeeg yooyu ak li nga xam ne ay jamaadaat lañu mooy li xam te ay xeer lañu wala ay bant lañu nga xam ne duñu noyyi am na ci yoxe itam màndarga la ñeel jullit yi ñeel way gëm ñi waaye li mboole mawjudaat yi am yépp laa wax sunu borom subhaanahu wa wutal na ko nu muy sujjooteeg nu muy sàbbaale noo ko dul xam rek bu dee malaaka yi jibril moo na wax ni di melal jaamuk malaaka yi mu ni wa inna la nahnu al musabbixuuna wa inna la nahnu al musabbixuuna kon malaaka yi ñoom dinañ ay sabal yàlla loolu moom sabal moom mu fekk baax ci malaaka ndax daal la tuubu malaaka mooy sabal ñaareel ba ci wàllu malaaka yi eh, ci waxtu wa xam te ne ñu ngay wecceeg yàlla ay kàddu eh, ba leen yàlla diggée ne dina bind aadama andi ko ci suuf ñoom it ñu gis ni ñoom kat li ñu nekk ci suuf lu baax la waaye comme xooma lu tax yàlla di di eh, di fi jële eh, di di di fi indi leneen mel ni noonu li nu nekk daal dafa amul solook yooyu mu ni wa nahnu nusabbihu bi amdika wane nahnu nun nusabbi kon malaaka yi nekk tey yu sabbi bi amdi al dañuy wax eh, subhanaka wa bi amdika wa nu xaddisu laka te dan lay sellal nun danu lay sellal te dan lay sabbaal kon de xaw ma lu tax nag ngay andi ñeneen mel ne noon danoo nekkeewul loolu wala déet loolu diggante waxi malaaka la malaaka ya la ak waxi sunu borom subhanahu ñetteel ba sabal yi xam ne toujours la sabal gi nga ne malaaka yi dañ koy sabal te muy toujours yokkat du ca am sunu borom moo wax ci alquran ni yusabbihuuna lahu bi layli wa nahaari wa hum laa yasamuuna yusabbihuuna lahu bi layli wa nahaari wum sama yasmauna ñoom dañuy sàbbaal ci guddee ak bëccëg te ñoom duñu yokkat mukk duñu tayal sàbbaalu malaaka yi dàq lépp loo xam te ne ak weddi la ñu ne yusabbihuuna layla nahaara laa yafturuuna ñoom dañuy ba tey sàbbaal guddeeg bëccëg te duñu euh, tayal walla ñuy jàmbat wala ñuy yokkat daal ca jaamu ga ngi jaamu yàlla gu ñuy yokkat baaxul loolu moo tax sooy jaamu deel jaamoo ni nga mën a jaamoo rek te mën koo wéyale moo gën ngay teg sa bopp lu rëy loo xam te ne da ngay dem ba yàgg nga ne ah mbas ma de lii tema ko bàyyi far loolu loolu baaxul googu jaamu yàlla yàlla du ko fay moo tax lu tuuti te sax moo gën lu bari te saxul juróomeel ba tasbixuhul maf muqtarinu bi sajjati sàbbaal goo xam ne dafa ànd akub sujuut malaaka yi ñoo koy def wa yusabbixuunahu wala huwa yasjuduuna kon malaaka yi yusabbixuuna waaye ba pare wala hoo yasjuduuna dañuy sujjóot suratul Araaf la ko wax ay ñaari téeméer ak juróom mbenn ba tey juróom mbenn na ba ci wàllu sabaalu malaaka yi tasbiixu muqtarinan bi tasbix raad ala sabili siyaasiya wal aybati maanaam sàbbaal goo xam ne dañ koy lëkkaleeg eh, eh, ci sàbbaaluk malaaka ma nga xam ne moo tudd ar raadu raat mooy ak dënnu waaye fii nag mi ngi firi malaaka mi nga xam te ne moo moom la ñu wakkil niir yi mooy màng niir yi di taw ci di taw ci jaw jeeg di taw ci àll bi malaaka moom mu tudd raadu mu tax ni way ci alxuraan sootu way wayu sabbi wayu sabbi u raad bi amdihi maanaam malaaka moom nga xam moo tudd raadu tey màng te ñu wàccil ko muy màng niir yi di wàcceb taw moom subhaanallah day day wax subhaanallahi alazim waaye wal malaykatu min xiifati juróom-ñaar ba ci sabaalug malaaka yi ñi nga xam te ne ñoo yenu aras ak kursi yi ci waxtu bi nga xam te ne ñi ngi tawaaf di wër aras ñu ngi lab ci seen sabaal yi ñu ngay labal ñu ngay lab ci seen sàbbaal ya ca lab sàbbaal ya ak seen jéggulu ya alquran allasina yaxmiluuna al ars wa man awlahu yusabbihuuna bi amdi rabbihim wa yuminuuna bihi wa yastagfiruuna lil muminuuna wa amalat nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ama allati li loolu mooy juróom ñaareel wala juróom benneel yi nga xam ne juróom ñaareel yi nga xam ne day alquran dañuy won ni malaaka yi dañuy sàbbaal ci anam yu mel nii sàbbaal yoo xam ne li nabiil muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ko jagoo bu njëkk bi alxuraan da naan am na sàbbaal yoo xam te ne yonent bi daf koy def ba pare lëkkale ko sujjootub ak wóolu ni dee am na ak jaamu yàlla maanaam sax ci sax ci jaamu yàlla ba dee ñëw sax ci jaamu yàlla ba dee ñëw alxuraan ne fa sabbih yow muhammad bi amdi rabbika si nga de moom lay wax wa kun mina saajidina nga bokk ca way su jot ña wa abut rabbaka jaamul sa boroom xataa yaatikal yaqiin ba kera day ñëw kon ndekete gaa yi ah sama mbokk yi ndekete ndekete jaamu yàlla kenn du ci retraite moom kay da ngay dem ba xam ne yow mënatoo rek xam ne da ngaa mënul sam xel a fi nekkul wala sa sa yaram moo nangootul waaye jaamu yàlla kenn du ci retraité loo gën a mag rek di gën a war a mën a jaamu yàlla ndax loolu la waa yàlla wax yonante bi te dañ na ko royloo wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqiinu ñaareel ba tasbiixun fi tarafi nahar muqtarinun bil istigfaar min az-zallati sabaal yi nga xam te ne euh, sabaal yi nga xam ne mi ngi ci petu bëccëg bi peti bëccëg bi nag mën naa firi suba mën naa firi ngoon mu ni muqtarinun bil istixfaar ñu lëkkale ko nag ak ay istixfaar mu ngoog loolu ba tey mi ngi loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ni ko wastaxfir li zanbika na nga jégglu say bakkaar waaye wa wasabi bi amdi rabbika na nga wax subhaanallaahi bi amdi kañ bil say wal ibkaar ca ca ngoon ga ak ca suba ga moo tax bal yàlla toujours baax na lool ci waxtu wu nekk waaye mi ngi gën a suba ak ca ngoon ci ngoon ak ci suba suba ak ci ngoon moo tax toujours rek mu nga gis muy bari lu muy wax bil asi yi wal ibkaar ba tey saabal yi xam ne saabale yonante bi la sallallahu alayhi wa sallam ci biir lëndëm ak guddi ak weetaay ba mu ne wa min al leyli fasjud lahu wa sabbihu leylan tawilan loolu dañ ko digal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy def ay tahajjud fi leyli di sujjoot ak a jàng alquran ak a julli ci biir guddi gi ñeenteel ba sàbbaalug ak sàbbaalam gi xam ne moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam buy tàmbali mbir ak bu koy jeexal ci waxtu jaamu yàlla kon jaamu yàlla gu ne bu su ko dee tàmbali da koy tàmbali ay tasbihaat ni naa la tasbihaat dina firi mbooleem sikkar mbooleem xeetu sikkar yi dana firi tasbih wax naa la ko léegi tasbihun fi ibtidaai wa wal intihaai sabbaal ci ab tàmbali akub jeexaltal xaala ibadati ci waxtu jaamu yàlla kon sooy jaamu yàlla sooy tàmbali na nga sàbbaal gi nag ah, du du rek suba ana bi am di yi waaye mën na firi mbooleem luy xeetu zikkar yi rek mën naa firi tasbiix war naa la ko léegi boroom xam-xam yi ñoo ko wax alxuraan ni wa sabbi bi amdi rabbika yow yonante bi hiina taquumu wa min alleyli aywa ci bëccëg ak ci guddi fa sabbihu wa adbaara nujuumi na nga ko euh, sujjootal bu euh, biddéew yi joxee ginnaaw loolu yooyu yëpp ay wax la yoo xam ne mi ngi jëm ci Seydina Muhammad muy ñeenteel yëf juróomeel ba jëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tasbihun muqtarinun bi tuluwi wal qurubi di sàbbaal goo xam ne da nga koy lëkkaleeg fenkteel jant bi ak soteel jant bi ma ne loolu waaye lu tax yàlla bari na lool lu muy wax fekkatal jant wala soo jant wala ci suba wala ci ngoon ngir ak li ajli saharir ngir ak seede kan moo koy seede gis nga malaaka yi nga xam ne dañuy monte guddi tàkkusaan la ñuy ñëw malaaka yi xëy itam dañuy monte ngoon tàkku euh, euh, euh, baal ma malaaka yi ne dañuy monte bëccëg suba la ñuy ñëw ci fajar gi malaaka yi xam ne dañuy monte ci guddi gi tàkkusaan la ñuy ñëw yooyu ñaari ñaari malaaka yooyu bii nar a yendu si bi nar a yendu si ca suba lay ñëw yendu ba ngoon jot waaye balaa dem malaaka yi koy renouveler ñëw euh, ci tàkkusaan gi mbaa ci euh, jant bi euh, soog yooyu ngir ñooñu ñooy fanaan ñooñee nag ay seede la ñuy doon ñaari ne malaaka mi su demee ca son borom rek naan sama jàmbade yi moom de ba ma xëyee ci suba fekk naa ko bay def nangam ka nga xam itam mooy gont itam danaa mel sama jàmm eh, sa jàmba maa ngi ko fekk ca ngoon muy def nangam gis nga ñaari malaaka yow moo tax julli wala zikkar mbokk mi baax na ci heure bu ne nee naa la waaye suba ak ngoon ca la suba ak ngoon ca la moo tax fa sabbih wa atraaf nahaar laallaka tarda laallaka tarda mu ngoog wa sabbih bi andrabika qabla tuluu'i shams wa qabla ghurubiha wa min al-layli fasabbihu wa adbaara sujuudi mu ngoog tasbihun daa'imun li ajli rida wal wal eh, kiraam wal kiraamati wal karaamati naam tasbih gi nga xam te ne da nga koy def toujours ngir bëgg ngir mën de yàlla ak teraangaam alxuraan yonent bi fa sabbi wa atraaf nahaar sabbaal ci pete bëccëg bi moo xam suba la wala ngoon la mooy pete bëccëg bi rek mën naa firi lu nekk la alaka tarda bee nga gërëm bee ñu gërëm la sootu taaxa ay téeméer fanweer loolu mooy tasbiha yi xëy dafa jëm ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen tasbiha yi dafa jëm ci yeneen yonantu nag mënte mënuñoo wax yëpp waay dañ ci wax yenn nat rek mu ni les li Sakariya alaamaatu ala wiladati Yaxya Sakariya mii am na màndarga moo xam ne moo koy wan ni am na doom ju ñuy wax Yaxya Yaxya dafa bokk ci ñi indaale seenu tur mooy yonte yàlla Yaxya baayam tuddewu ko ko maamam tuddewu ko ko yàllaa ko ko tuddee te Yaxya Yaxya kenn mësu koo tudd mu doon mu doon ah, jëmm joo xam ne. Zakariya mooy baayam waaye boroom boroomi mbir la téere yi nee ñu moom musta jaar ci li ak ngone jaar li ngone di jaar nga xam ne la di ak ngone moo fa jaar moom Seydina Yaxya alayhi salaam moom musu ci jaar soo demee ci téere boroom xam-xam yi da fekk Sakariya di wax ak ay moroomam ay tuut tànk seen moroomi tuut tànk suñ ko nee sàkkari eh, suñ ko nee ah bal ma bal ma yaxyaa laay wax yaxyaa kaay na foyi fekk moom gune bu tuuti la ak tuut tànk tuuti la mu tontu leen ni leen man yàlla dama bindul ngir fo te boobu gone bu tuuti la moom yaxyaa moomu alayhi salaam moom mandarga mi xam ne moom la yàlla wax baayam pour mu xam ni yàlla may na ko doom ji tudd yaxyaa te Zakaria moo ko ñaan borom bi rabbi ij'al lii aayatan defal ma ko mu nekk màndarga moo xëy day wone ni may nga ma doom ji tudd Yaxya xaala mu ni ko aayaatuka alaa tukallim naas talaasa ayaamin sa màndarga mooy bul wax ñetti bul wax ak ñetti fan ila ramzan lu may ngay joxoñ ak junjag yooyu mu ni nag waskur rabbaka katiir na tu tudd sa tur borom lu bari nga wutalu ko ab ab tuddal sa borom lu bari waaye wa sabbixu bil asi wal ibkaar na nga sa borom ca ngoon nga ak ca suba sa ali imran la ko yàlla wax asaani wasiyatun li qawmihi muaafasatan ala wasifati tasbix dénkaane boo xam ko da koo dénk nit ñi ni leen ngeen sàmmoonteeg sax ci sabbaal alquran ni fa awaa ilayhim an sabbihu bukratan wa asiyan na ngeen sax di sabbaal suba ak ngoon xanaa la léegi ne la waxtu wu nekk ba sabbaal baax na waaye mi ngi gënee suba ak ngoon kenn suba ak ngoon daal am na mbir am na lu ci nekk bu jant bi fenk bu jant bi soo dalaa ngi ci surtout nag ñaari malaaka yi xam ne ñooy relewente ñoom dañ fi daje bi yenn woon balaa dem bi nar a fanaan ñëw ci suba gi itam euh, bi bi fi gontan fanaan balaa dem bi na a euh, bi nar a yendu ñëw moo tax aaru suba ak aaru ngoon loo ciy def rek ñaari malaaka yi ñoo koy seede te lool dañ koy wax suñu borom subhanahu wa taala ñetteel ba ci li nga xam ne ay yonantu ñoo ko def fi ma wax euh, mu waafaqati al jibal wa ziba wal itaan wa tuyuur li daawuda fi tasbix ni yàlla may woon mu dëppoo ak montagne yi ak kéwél yeeg jën yeeg euh, picc yeeg ñeel daawuda alayhi salaatu muy zikkar di tudd yàlla euh, njaay àll yooyu ak euh, doj yeeg garab yépp topp ci ginnaawam di ko di ko di ko toppandoo ci sabbal gi koo koy daawuda ku doy waar a ngi noonu góor gu doy waar a ngi noonu moom day moom euh, daawuda moom day yusabbih na bil asiyi wal israq danaan su jóot da euh, sabaal ci ngoon waaye ak ca penketel jant bi ñeenteel ba ci loo xam ne ay ab yo ci ab muhammad mu ni fii najaati yunusa min tulumaati l barri wal batni l xuur bi barakati tasbix mucc gi nga xam te ne yunus mucc na ko ca lëndamub géej ga ak ca biiru jën wa ci barkeb tasbiix la ko amee yàlla ne ko ey yow yunus fa lawla annahu kaana min al musabbiin bu du ko nag la nga bokkan ca ña doon sàbbal seen borom la la bi sa fii batnihi ilaa yawmi yub'asuun kon tey nga nekk ci biiru jën yi ba kera may dekkal euh, àddina si xoolal loolu kon sàbbaala ngoog mbokk yi bépp xat-xat wala tànk-tànk wala jafe-jafe wala lu la jaaxal lu ne nga bëgg yàlla defal la ca maxrija defal la ca tawfiix dénk naa ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin amul benn jafe-jafe amul benn tànk-tànk wala xat wala dara lu mu mën a doon ngay wax kàddu googu lu dul yàlla daal la jox solution bu jàppandi bu baax ci yow moo tax Yunus sa fa mu nekk na garaaw na mi ngi ci biir géej mi ci mi ngi ci biiru jën mi ngi ci lëndëmu guddi dégg nga waaye foofee mu nekk ñu sànni ko ca géej ga jën wu mag wi ñuy wax ngaa ka ñëw wan ko yàlla ne yàlla ne ko nag jën mun ko naam mun ko nag loolu dugg ci sa biir kët du añ du reer loolu laa lay yëgal du añ du reer teyel ma ko foofu rek waaye nag du càggeeg ni dañ la ko jox muy xéewaluk añ wala xéewaluk reer boo ko jël woo moo dee jën woo dani ah man de tey ji am naab añ wala am naab réer yàlla ne ko ne déedéet jën mu ni ko naam mu ni ko mu ni ko loolu dugg sa biir du du du loo war a añe du loo war a reeree dewal la ne rek téyel ma ko foofu jën wa daal di dem daal di kole ci benn benn benn ruqub doj nekk fa rek ba keroog yàlla daal di koy digal ni ko génnal nga daal di buusu euh, li nekk sa biir te mooy yontu yàlla yunus alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko nag wallahi falaw laa annahu kaana min al musabbiina bul ko ne la nga bokk ca ña xëy dañu sàbbaal wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina salimin kon la labisa fii batnihi ilaa yawmi yub'asuuna foofu daa lay bàyyi bëkk la bis penc jàlla jëlal bu dee ci wàllu ko li nga xam ne mooy lu ñu jagleel way gëm ñi ta ta tasbiix gi nga xam ne dañ koo yeyale wala dañ ko jagleel way gëm ñi ndigal leen ko ñoom ñépp nag ñuy zikkar aka def ay tasbihaat te sax ca dàkk alquran waskurullaha tudd leen yàlla dikran ak tudd kattiran gu bari tudd leen yàlla lu bari wa sabbihuhu bukratan wa azilan na ngeen sabbal yàlla suba ak ngoon mbokk yi gis ngeen la bañ tàmbalee ko ba léegi maa ngi naan suba ak ngoon rek maa ngi naan suba ak ngoon rek kon la kon wàllug ñaan wala wàllug sikkar mi ngi gënee ci diggante ngoon ak suba atraaf naar boobule ca la gënee ndax lan ñaari malaaka yooyu xamte ne ñooy nar a relewente bii fi yendu bii fanaan fi dégg nga ñoom dañuy daje foofu te ay seede lañu te loolu lañuy wax sunu borom subhanahu wa taala ñaareel ba ci tàgg gu gu yàlla tàgg aw nit ñoo xam ne dañ doon tudd yàlla eh, nga fekk leen foo leen fekk rek ñu ngi sujjoot ak sabbaal yàlla tagg leen ñu ne xaroo sujjadan nga xam ne nga xaroo sujjadan bu ñu tuddee màggu yàlla dañuy sujjóot nga am na ci alquran ay barab yoo xam ne boo koy jàng ba àgg fa da war a rot dal di sujjóot daal dafay ñaan ñaan gu baax ñaan gu neex ndeysaan ah, ak noo ko mën a ñaanee nag yàlla defal la ko ak kéewal kon xarru sujjadan ñu daal di rot daal di sujjóot yàlla ni mu bëgg jaam bu jékki-jékki rek daana fi soof rek daal di sujjóot mu ngoog kon booy jàng alxuraan ba ak te barab yooyu da ngay sujjoot yow mi jàng na nga sujjoot waaye yow miy déglu it bu la fekkee kum laab nanga nga sujjoot ndax kii déglu alxuraan ak kii jàng alxuraan ñooyam bu la alxuraan ñoree dégg nga taal sa rajo moo di ko wax nga ànd ak teewlu waxtu wu àggee ci barab sujjoot te nga xam ko rotal sujjoot te waxtu wa nga xam te ne yaa ngay déglu alxuraan boobee bu ko ruurte waxu yàlla kenn du ko ruurte kenn du ko ruute mooy di jël ay wax di ko ci jaxase kenn du def loolu euh, mu ngoog yàlla ni wa sabbixu bi amdi rabbihim ñu ngay sàbbaal di wax subhaanallah wa bi am di pour seen boroom mu ngoog léegi nag mu ni am na aw nit ñoo xam ne dañuy jàpp néegi yàlla yi jumaa yi ak jàkka yi di fa toog di fa toog di fa saxoo di fa sàbbaal seen boroom ak di zikkar dégg nga maa wax la ni la wazifa bi nga xam te ne Cheikh Ahmad Tidiane Sarif mi ngi koy def ak mboolem ñi nga xam te ne dañoo nekk ci aw yoonam euh, lu wér la maa la wax ne lu wér la amaana nag sa sa gàtt xel di ma di di nga ma am foo ma féetale wala wala yu ma waaye da ko da ngaa juum rek alquran moo ko wax alquran ni fi buyuutin uzina allaha ci néegi yàlla yi ci eh, ci néegi yàlla yi leen ñuy digal an turfa ba ngeen di yëkkati eh, turam wa eh, ba ngeen di yëkkati way yusgaru ngeen di zikkar fiiha ca néegi yàlla ismuhu turam wa dégg nga day yu sabbixu lahoo di ko sabbaal fiiha ci moom bil qudwi ci suba sa wal asaali ak ca ngoon nga mu ngoog loolu mooy wasifa yi nga xam ne ñu ngi koy def suba ak ngoon a ngoog alxuraan foofu la ko junj saa bu ñu la laajee nel naa la mbiri wasifa ak yu mel noonu tontul naa la tontul naa la dégg nga day mooy fii fii buyuutin uzina allahu an turfa wa yuskaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal asal li ñuy wax hadratul juma ba tey sax amati jaan di ko def dégg nga ak wasifa yi subaak ngoon ak yooyu yëpp laa ni tës lay la mi ngi foofu ci alquranul karim yuwazibu yuwazibuuna ala tasbii wa dicre alquran fi buyutin usina allaha an turdaa wa yuskaru fiha smu yusabbihu lahu bil biha bil xudwi wal asal mu ngoog kon euh, wasifa ngoog ci néegu yàlla yi lañ leen diggal ngeen di yëkkati ak a sikkar turam wa di sàbbaal yàlla suba ak ngoon amaa bi nga xam te ne sàbbaal la ñeel xayawaan yi mooy rab yeeg yooyu ak bahaim yi ak jamaadaat yi mooy yi xam te ne du ñu noyyi comme xeer yeeg bant yeeg yooyu ba ci jëkk yàllaa ne fi anna kullu nawin min al mawjudaat xeet yi yàlla amal yépp mustaqidun bi nawin min al min al tasbiaat dañoo soxlawoo ak jëf ci xeeti tasbiaat yi buñ ko xamee buñ ko xamul yàlla di siwaat ca aaya ja wa in min cheyin ilaa yusabi bi amdihi walakin laa tafqahuna tasbiahum walaay amul dara dara dara ci mawjudaat yi yàlla amal yépp lu may ñu ngay sukki doon yàlla subhanahu wa taala ñaareel ba fii anna tuyuur fi l hawaa'i mustafatun li adaai warad warada tasbia dégg nga wala wala wirdu tasbia picc yi nga gis naaw gu ñuy naaw ci kaw di lapp-lappal seen laaf ya ba ñu bañ koo lapp-lappal ak yépp ñoo ngi koy def li adaa yi wa tasbi ngir rek di jooxe li ñuy wax ak tasbihaat mooy di wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illa allah wala nga ni subhanallah al asim subhanallah wa bi amdi subhanallah al asim may mën a siis subhanallah al asim ak subhanallah wa bi amdi subhanallah al asim subhanallah wa bi amdi bu ko bàyyi mukk ndeysaan subhanallah al asim subhanallah wa bi amdi picc yooyu wa tayru safatin kullu xad alima salaatuhu wa tasbih nekk dañoo dañuy julli te mooy jaamu yàlla googu ma doon wax waaye dañuy sàbbal seen borom dañuy sikkar donte xamuñu ko soo demee nag ci li nga xam ne ay màndarga la yoo xam te ne yàlla nga ko amale ci ay sàbbaal ci loo xam ne dafa matale moo xam ci wàllu dund la wala dee la yàlla ni sa lillahi ma fi samawati wal ard huwa asisu akimi la wa mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiitu sootu addiit eh, saabal yi nga yëpp saabal yi nga xam te ne dañ koy saabal yàlla da koy saabalal ngir génnee ahlul kufri ca seen dëkk ya ak lëjal gu ñu leen euh, ak lëjal gu ñu lëjle woon yàlla ne ci suratu euh, asri aouzu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim yusabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi l ard wa waasilu hakim wala si axraja alladina kafaru min ahlil kitaabi min diyaarihim li awalil asri maa sanantum an yaxruju wa sannu annahum maaniatuhum husunuhum min allah fa ataahum allah min aysu laa lam lam yaxtasibuna wa xasafa fi qulubihim ruba sootu asri la ko yàlla wax bi nga xam te ne mboolem xeetu tasbihaat yi ak yi nga xam te ne seen jëf dafa waroo te te te dañoo dañoo wuute ci te te ñu yelloo ŋàññ walla xas yàlla ne ca suratu safi yusabihu lillahi maa fi samawati wa ma fi l ard wa huwa aslu hakim yaa ayyuha lazina amanu lima ma la tafaluuna say wax daal di ak say jëf naa fekk moo koy def nit ku ne war ngay góorgóorlu la ngay wax bokk ak la nga fas ak la ngay def waaye di la la ngay def la ngay wax lu ko te naroo ko nga di ko wax loolee am naa moo koy def kon kenn ku nekk ci nun nay moytandi ko di wax loo xam te ne dañ la naan yaa ko fi waxan loolu nit ku nekk war nañ moytandi ko loolu sit na ki ñu wooye ab jullit yàlla ne na yaa ayyuhal lazina aamanu yéen ñi woote woon ni am ngeen gëm ay jullit ngeen lima taquluuna lu tax ngeen di wax maa la tafaaluuna lu ngeen dul def kabura maxtan indallaahi ca sootu safi la ko yàlla wax demal nga àggale ko fii ànd kullu fii tasbii lil qudsi wa tahaara sabal gu nekk lëkkoo ak sellal ak laabal yàlla ne ca surtu jumaati ca mujj yusabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi l ard almaliku alqudus almaliku alqudus al azizu al hakim juróomeel ba te moo ci mujj ana kullu fii tasbii ala taxsini al xalqi wa suwar e, sabal gi xam te ci la yàlla rafetale bindi ak melokaan yi yàlla ne ca surtu taxaabu ni yusabbihu lillahi maa fi samawati wa maa fi l ard له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير mu ngoog loolu la ba tey kon ñu léegi waxtu bi commencé di waaj a jeex waaye ñu xaw a baral tuuti rek ay yi xam ne dañoo di andi ay tasbihaat te muy juróom-ñett fukki aaya ak ñeent ci alquraanul karim aaya yi xamte day digle tasbiix mooy sabbal yàlla sellal yàlla mutulaxan bokk na ca aaya yooya fa muy waxee fa sabi bi amdi rabbika wakun mina saajidiina aaya yi xam itam ay melokaani day melo day melal way gëm ña mu ni bokk na ca aaya ya koy melal qul asi sabil daawa ila llahi albasiratin uh, wa min wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin aaya yi xam itam dañuy wane ay tasbiyaat sellal malaaka yi ci ay lu ñu feeñal feeñal màggalu yàlla màggalu yàlla subhanahu wa taala mu ni yusabbihuuna bi amdi rabbihim wa yastaghfiruuna liman fi l ardi alaa inna allaha huwa al ghafuru rahim aaya yi xam ne dañuy euh, euh, euh, day wax ci sabaal setal yàlla ak soril yàlla lépp loo xam te ne lu yelwul ca jëmam ja wa xaalu taxasallaa waladan subhaanahu bal lahu maa fi bal lahu fi samawati wal ard kullun lahu xaanituuna yàlla amul doom yàlla amul yaay amul baay jurul jureesu ko xul wallaahu aat allaahu samat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kon kenn kuñ naan yàlla doomi yàlla la loolu ay caaxaan rek la ayatu tasmil malaayika fiiha min alaamati ubudi maanaam ay yi xam te ne malaaka yi ñoo koy sàbbaale sunu borom te muy màndargam jaamu ci ñoom yàlla na wax ci alquran ni inna lasina inda rabbika yastakbiruuna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduuna wa lahu yasjuduuna loolu malaaka yi ñoo ko moom ay xam itam day ñëwaat di ŋàññ ah, ah, ah, day setal <coughs> tuuma joo xam ne dañ ko isa alayhi salaatu wasalaam sun borom dani yow yow isa wa isqalallahu ya isa yow isa ibnu mariama doomu mariama a anta xulta li naasi yow yéen a wax nit ñi ni leen ataxisoo nii wa ummi jàppale na man Isa ak sama yaay ilaahay ni nu ñaari yàlla man ak man ak man ak eh, man eh, eh, nuy nuy ñaari yàlla man Isa ak sama yaay min dooni laay bàyyi yàlla bi bi ko yàlla waxee Moussa Isa alayhi salaam Isa da ko ni subhanaka gis nga de subhanaka maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi aqin in kuntu qultahu bu dee maa ko wax faqad alimtahu xam nga ko wax yow yàlla taalamu maa fi nafsi yaa xam li fi man wala alamu maa fi nafsika man xaw ma li fi yow innaka anta alimul quyub yaa xam li fàddu tontu boobu moom la yàlla moom la Isaa tontu yàlla ba mu ko ne yow yaani yow yaani man ak sama yaay kaay leen ngeen jàpp nu ay yàlla Isaa ni ko déedéet ma ne kay subhaana subhaana maa yakunu lii sell ñeel na la nekkul ñeel ma may wax may wax loo xam te ne du dëgg ndeysaan maa kontaan ci loolu maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi aqin du ma wax mukk lu dul dëgg ne ko nag in kuntu xultuhu bu dee maa ko wax ah faqad antoo yow yàlla xam nga ko nag waaye ndax yow yàlla taala maa fi nafsi yaa taalamu maa fi nafsi yaa xam li fi man wala ahlamu maa fi nafsika xawma li fi yow ndax yow innaka yow man koy bàkk anta yow allaamu yaay aji xam ja alquyubu la fàddu la mu ngoog ñu ñëwaat ci balaa waxta wi jeex ay minutes yu néew moo ci des jeexitali waxi ulama yi ak firikate alquran yi ci baatub tasbiix temalan ni ñëw na ci ñëw na ci sunu waxtaan fukk waaye nag duñ ko mën a indi lépp ndax li Euh, taxañan lépp bëgg bëgg koo goqi fii dafa xajul ci waxtu yi moo tax xajul ci ay émission jëy nañ ci abadata mu ni Omar ibnul Xataab daana bari lool lu muy wax kàddu yi te di ko biral nag di ko wax ca kaw ñu ko yan kàddu mu ni subhaanaka allahumma wa bi amdik tabaaraka smuka wa taala jadduka wallaahi laa xayruka Omar moo daan wax loolu yéen itam tàmmale ta ta toppandoo leen Omar moo daan wax naan subhaanaka allahumma wa bi amdik tabaaraka smuka wa taala jadduka wala ilaa xirka loolu la daan wax ndeysaan loolu ay tasbihaat yooyu des na ko def su fekkee da ngaa kabar armal te jàngagoo alquranul karim eh, loola ngay wax soo nee allahu akbar kabaru armal jël sa loxo teg ko ci sa dënn bi daal di yàllu ndànk nag wax la ngay wax nag loole nag laaj nañu yonante bi ni ko yow gis nañ la soo kabare kabaru armal bala ngaa jàng am na loo xam ne yaa ngi koy wax te nun xamuñu ko ndax dégguñu ko ndax da koy yàllu mu ni dama naan subhanaka allahuma wa bi andika wa tabaraka smuka wa taala jaduka wa laa ilaaha xayruka kon mbokk yi képp ku nekkati di julli su dee kabare kabaru xaramal ba pare balaa commencé jàng fatiha na wax subhanaka allahuma wa bi andika wa tabaraka smuka wa taala jadduka wa laa ilaaha xayruka jël nañ ci ibnu abbas mu ni amarahu an yusabbihu bi fi adbaari salaat dañoo diggal nu wax ay tasbihaat yoo bari ci mujjug julli yépp nag mujjug julli yépp mooy baaxaatu saalihaat subhanallah 33 walhamdulilah 33 wala akbar 33 mu nga loolu dañ nu ko digal mu sunna su dëgër su baax su bari ngëneel kenn du ko tey di ko di ko bàyyi te lu dul da ko fàtte ngoog kon boo jullee ba pare la ñu wax ni na nga def euh, euh, tasbihaat yooyu jeexalu julli gu nekk 33 60 euh, subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar ibnu bataala nee na dëgg-dëgg boo bëggee xam baatub tasbih ak takbir li muy li muy firi dëgg-dëgg mooy màggal yàlla rek ak soril ko lépp loo xam te ne ñaaw na waruñu ko teg ci jëmmam ja waaye itam des na arab dina fa fa rek jëfandikoo baatub subhaana ci bu amee lu mu yéem ak di ko màggal ak di ko réyal ci ab taaram wala yu noonu arab daana jëfandikoo baatub subhaana mu ngoog moo tax mu ni wastimal wastamala dalika inda inda taajubi wal istihsaami al amri al hasan lu rafet lool nga yéem ko wala lu lay jaaxal lool lu rëy lool loolu bu la yéemee arab dana faral a wax subhaanallah loolu lu mu ca jublu mooy màggal yàlla ak réyal ko ak soril ko lépp loo xam ne dafa yellu ca jëmmam ja baadab tasbix ak tasbix wa fiihi tamrinu lisaan tàmmal miinal aw lammiñ ala dicrillaahi kon nit ku nekk war a jéem a miinal aw lammiñam ci zikrullaahi di tudd yàlla dinaa la baatub zikru nag baatub tasbix bu ñu ko waxee dugal na mboolem xeetu zikru yu yi ñuy sikru ci jëm ci yàlla subhaanahu wa taala waaye tàmmal saw làmmiñ ay saaga di wax lu bon nit ku nekk war na ko moytandiku bu baax tàmmal sa làmmiñ aw tàm tàmmal sa làmmiñ saw làmmiñ tudd yàlla loolu mooy li nga xam ne moo lay jariñ ibnu rajab ab sëriñ la yàlla ko yàlla yërëm day wax ni ah, abi urayra ab saxaaba la ab saxaabi la bu màgg la bu do bu doy waar bu jàmbaare bu farlu diir bu gàtt la ànd ak yonante bi rek raw ñëpp daawul bàyyi yonante bi lu dul tëdd tëdd tëdd guddi rek waaye lu dul loolu fa yonante bi nekk rek ma nga fa moo tax moom màgg ca xam-xamam ba lu kenn màngul hadis yu bari yi nga gis nga xam ne yu bëree baree bari abi urayra moo ko indi abi urayra parce que man ngay quelque at ay ñetti at ñeenti at dong la nekk ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mujj mu raw ñëpp lu tax mu raw ñëpp Eh, ndax daawu teqale koog yonent bi lu dul waxtu tëdd dong lay bàyyi yonent yi mu dem tëdd waaye bu yeewoo mu ànd ak moom toog bëccëg ba ñu nga toog waxtu wu ne ñu ngay toog ñu nga ca ñu nga ca ñu nga ca lu nekk eh, fekke na ko fa yonent bi addiise mbaa muy jàngale mbaa muy waxtaan rek mbaa muy laaye biir mbaamuy muy jubale ay nit mbaa mbaa mbaa abi hurayra ma nga fa toog kookee nag lamu mu màgg ci xam-xam bu ju bu mu jóge ci yonent bi amul benn saaba boo xam te ne eh, màgg na ko ndax li ko waral mooy loolu ànd ak itam ñaan nga xam ni Abi ñaan ñaanal yonent bi ñaanal na ko ndax bi ñaanal na ko dafa lalan kaalaam mu am lu mu ca wax tefli ca mu wëlbatiwaat ka am lum mu ca wax tefli ko Abu dal daal koy sàngoo xoolal loolu loolu kiis la kon kiis a ngoog di leen naan kiis ay gaañi mu ngoog Abi Hurayra moomee laay bëgg a wax dama la doon musal tuuti ci ayab cib taxawaayam nee na xaytun fiihi alfu uqdatin abi hurayra aman na benn buum goo xam ne daf taa fas junni fas-fas nee na fala yanaamu atta yusabbihu bihi du nelaw mukk lu dul mu jël buumam googee pas-pas bu ne mu jàngate subhanallah wa bi amdi wala subhanallah walhamdulillah wala laa ilaaha illallah bis bu nekk na guddi gu nekk nag ngoog loolu foofee nag mooy cosaanul kurus kon kurus ku koy bañ sam njàng soriwul rek waaye bu sam njàng sori woon xam nga ne xel abi xurayra du sama room ku daan toog ak yonante bi daawul taqale ko moom lu dul waxtu tëdd màng ca moom lu bari lu kenn mangul kookee moo daan def loole ngir bëgg def junni mu daal di koy wutal nag kurus rek ak buum la jël fas ca junni fas fas bu waxtu tëdd jotee mu jël buum ga di di jàpp par euh, par pas pas kurus la euh, kurus rek la sa sayyidatuna Aysa itam def na lu mel noonu fol na lu mel ne ay Euh, bali laspeer yu tuuti yooyu ay xeer yu ndaw ay jambaraay yu ñuy sànnee jëmbaraay yooyu yu tuuti yooyu mu lim ci wut ci ab lim saa bu tas defee ay tasbiyaat di jël aw doj teg fii di jël teg fii su paree daa koy laxas ci lafu mël faam ay Aysa daana def loolu kon mooy cosaanul kurus kon kurus a ngoog ay moyen la yoo xam ne boo naan kurus bi daala kurus bi daala waaye ay moyen la tee ngaa tee micro bii may waxee xanaa kon biddaa la yonent bi daawul wax ci micro mukk ci àddina yonent bi daawul wax ci eh, ci télévision yonent fi daa yonent bi yooyu yëpp yonent bi daaw ko def kon nag eh, yooyu ay moyen la l'islam du ko tere mukk wut den ay kurus tey fas yéene di tudd yàlla subhaanahu wa taala maa leen ko wax hasanul basri eh, ràññiku na lool ci di wax subhaanallahi al azim waxtu wu nekk bu nekkul di jàng alquran rek xama ne ma ngay subhaanallahi al azim moom xasanul euh, basri solo nañ ca al asar yi mu su mu sukkandiku ci gu ñuy wax kawa ibnul kawa ab sëriñ la moom itam laaj na saydatuna say saydina aliyu karam laa wacciwu ni ko an subhanallah ci baatub subhanallah laaj na ko ko saydina aliyu ni ko kalimatun radiha allahu li nafsihi baat la boo xam te ne yàlla moo ko gërëmee boppam fa awsa biha mu dénkaani nag mu dénkaani ko ni yéen it dinañ ko def kon subhanallah lu mu gën a baree dee ko def baaxeetu saalihaat 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar loolu la ñu digal ibnu xaladaan wala ibnu mahdaan ibnu mahdaan baal leen ma ibnu mahdaan moom it danaan sàbbaal bis bu yàlla sàkk arbaina alf quarante mille quarante mille fois la daan wax subhanallah wa bi amdi subhanallah wa bi amdi ba muy quarante mille fois mooy lan ñeent fukki junni ñeen fukki junni ci benn bis bu nekk laa wax ah kooku jàmbaar la si waa maa yaqarul min alquran saa bu nekkul di jàng alquran rek xamal ni ma ngay wax subhaanallaahi al asiim wa bi amdi subhaanallaahi al bi amdihi moo taxit falammaa maata wudia ala sariirihi li yuqassala fa jaala yasiru bi asbaihi yuarriku bi tasbihi ba mu demee ba faatu ñu teg ko ca lalub jaat ga ah, pour war koo sang waaye dañoo fekk ma ngay joxoñ baaraamam ya te fekk deena bu yàgg fa yu si yasiiru bi asba yi ma ngay wëcc baaraam ya di ko yëngal e, ngir di sabbal yàlla subhanahu te fekk dee bu yàgg mu nga xoolal ñooñu rek ko xool ci ñoom war ngaa mën a góor góorlu waxtu wi dafa jeex ndekon ma indi la li ñuy wax fawaidul tasbih njariñal e, sabbal yàlla dinaa la wax ne la boo bëggee communiquer yàlla directement del del bari wax subhanallah subhanallah bi am di subhanallah azim léegi daal di def directement ak yàlla subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa allah yooyu daal dénk naa la ko nay bari ci yow lool waaye yu amiqul imaana bil qalbi day tax euh, sa xol bi fees dëll ak ngëm sooy bara sooy bara la wax kàddu googu gis nga wasilatu taajub yudinu bi al muslim in jaabaw bu jullit gisee lu ko yéemit dana faral di wax ah, subhanallah wax naa la ko léegi ci biir waxtaan wi wasilatul qurba ila allah mu ay moyen la pour nga jege suñu borom subhanahu wa taala da jóge jege suñu borom rek a wóor wastisaadu minal faydil ataayi ngir mën a ah, ah, dolliku ci mayi yàlla ya loolu boo ko bëggee del bari loo wax subhanallah wa bi amdihi wala subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa allah yukki lisaana ratman bi dikrillaay day deseel saw làmmiñ muy tooy xipp waxtu wu nekk sa gémmiñ di fuur ngir di tudd yàlla subhanahu wa taala te loolu lu am solo la chiar bayna al muslimina mooy sembalub julit yi yetaarafuuna wa yetawassaluuna tanbihul imamul iina yasxu min asalaat buy julli pour jamuj ñu ngi koy gàggantee ci baatub subhaanallah loolu lépp ay wasaa'il la yu kawe la yoo xam te ne boo bëggee amub yool na ko na nga ko saxoo takkaay la loo xam ne dafa lay jox dugg àjjana ju ànd ak ngërëm dugg ja àggana àjjana ju ànd ak gërëm mooy àjjana àjjana ju dul yi gàcce xam nga lan mooy àjjanay gàcce Basiir àjjanay gàcce mooy yóbbu nañ la àjjana de waaye dañ laa kii rek waaye kii yoo waaye defoo dara lu jar ñu yóbbu la àjjana loolu la Seex Tijaan Si sunu sëriñ ba daan wax naan àjjanay gàcce yàlla na càll musal wasilatul fuqaraa yi fii idraaki darajaati wa sawaabil axniyaa borom alal yi xam ne dañoo mën a génne alal di ko joxe yow amuloo alal joo joxe bari day wax subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar wa laa ilaha illa allah ñaari baat moo ci des sëriñ bi fii kasbun xubbulaa da ngaa bëgg yàlla bëgg la yàlla da ngaa bëgg yàlla gërëm la bari looy wax subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar wa laa ilaha illa allah ndeysaan yuxmi min alxala euh, euh, euh, xaailatil shayatin da ngaa bëgg da ngaa bañ saytaane sànq la réeral la ci fii dugal la ci fiiram yi ma ni bari looy wax subhaanallah walhamdulillah wallahu akbar wa laa ilaha illa allah waaw al ahlan asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam ajaratu macha allah macha allah mu ngoog mu ngoog mu ngoog dégg nañu torop na na laamee ñu tooy xib wallaay wallaay ka na laamee ñu tooy xib jërëjëf ka jërëjëf siis alhamdulilah sukran jasilan alhamdulilah sukran sukran mu ngoog soxna may mun a benn ba benn moo ci dese sadaqatun ala jawaari lis insaan nit koo gis am na trois cent soixante pol xam nga pol mooy poignée trois cent soixante pol ñu ni nag bis bu nekk war nga koo saraxeel bis bu nekk war ngaa saraxeel pol yooyee xuma nag boo baree bu fekkee ne amoo dërëm dee ko joxe ay fifteen xam nga trois cent soixante franc loolu moo di ay fifteen ñetti téeméeri fifteen ak juróom benn fukk mu ngoog loolu loolu am na solo lool kon kenn ku ci nekk na jéem wutal di sàkk sàkkal sarax ay cëram cër yooyu di banku te mooy ay pol mooy poignée yooyu noo ngi yemale foofu waxtaan wi di leen jéggalu di leen balu àq di leen balu àq yàlla defal nu ak dégg ak ku topp di nuyu mboolem way déglu yi soxna may mën a nong day ndokkeel bu baax ci bis bu tedd bi le di la wax ni la subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa allah wala subhanallah alazim subhanallah wa bi amdihi allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima uxliqa walxatim lima sabaqa nasir alaq bilaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari alazim inna allah wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf